ci yenn kaay yi. li ci yenn kaay yi. opération Sidi te leena jàmm ci xibaar yi bi di ñu xamal ne kay kay bi dañu ñu a xamal ne kay jamono ji kay ki nga xam ne nag moo di xalif général des Mourides ay kàddoom yi nga xam ne daal yëkkati na ko jëm réew mi quotidien du ñu xamal xalif kay wax na fi ñu tof raye ga bëri na lool penda mor ñu koy waxtaane ci réewum Sénégal site quotidien du ñu xamal kay jamono ji penda boobee nga xam ne moom la waxtaane ci réewum Sénégal daal ciy jox kàddu ñenn ci ñi nga xam ne daal ay politicien lañ ku ci mel ne Alhassane Ba moom mi nga xam ne nag moo nekkee ci PDS kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko moom daal jamono ji xam ne nag jëm na ci wàllu peine de mort gi maanaam daal àndu ci waaye tamit nag bañu ci la muy ne xam ne daal a ñàkk la moo di ay miiru ne nag moo nekk député bi nga xam ne nag loo xam ne daal dañoo a mën a jekki-jekki daal mbir moomee daal bu fekkee ne daal bëgg nañ mu daal sotti nañu xoolaat bu baax a baax mbir moo xam ne nag jëm na ci fànn ni mel da jëm na ci fànn gu mel yéeni waaye nag bu de mort gi nga xam ne daal dañu ko doon waxtaane ci réewum Sénégal yéeni kaay bi dañu xamal ne maanaam daal conseil des ministres lañu fa doon amal daal kenn tudd fa wàllum peine de mort laa peine de mort kenn tudd ko fay yéeni kaay bi dañu xamal ne loolee daanaka yëm fa ndax jàngub Sénégal bi jamono ji nag lépp loo xam ni dend moor googee nga xam ne daal ñi ngi koy waxtaane ci réewum Sénégal ñoom daal daa mel ni ànduñu dañoo jàpp ne jamono ji nag war nañoo mën a xoolaat yeneen yoon yoo xam ne daal mën nañu faa jaar ba ci libération yéenekaay bi dañu xamal ne fépp foo xam ne nag jëm na ci STBS jamono ji nag ñetti nit ñoo fa amal ak càcc gu metti daal daanaka ëpp na ñaari milliards waaw ñetti nit ñooñee nag yéenekaay bi dañu xamal ne mooy Serif Sow ak ki nga xam ne nag moo di Déthié Ndiaye ak ki nga xam ne nag Waagaan Fay Mbay càcc gu metti daal la ñu amal fi nga xam ne nag moo di STBS kilifa yi nga xam ne nag Ousmane Mbeng mi nga xam ne daal yëkkati woon nay kàddu ci lépp loo xam ne Facebook am loolee kay dafa mel ni coûté na ko seer ndax moom Ousmane kay jamono ji teg nañ ko loxo te boo matuwul dana dana ko coûté seer yéen kaay bi du xam ne waaye nag bu fekkee ne jëm na ci ay mbokkam kàddu yi nga xam ne daal yëkkati nañ ko jëmale ci fànn gu ni mel dañuy xam ne moom Ousmane moomee daanaka wérul moom Ousmane kay yaram wa neexul jamono ji doon na faju yéen kaay bi xam ak lu mën a xew daal moom Ousmane Momay daal bu moytuwul mbir yooyu dina mujjee saf ci moom sàpp yéeni kay bi di ñu xamal kay ñoo nekkee foofee dañoo jaay oto ba laaw oto ba nga xam ne daal moom lañ leen ñu daal ci war campagne yéeni kaay bi di ñu ne oto boobee kay lañu jaar yéenekaay bi nga xam ne nag moo di source a di ñu xamal ne mbir moomee kay mooy xalaas dëgg ma nga xewee nag fi nga xam ne nag moo di Mauritanie en tout cas daal man daal xam naa ne Mauritanie nambu li nga xam ne nag moo di këb da ak gëm xa ak li nga xam ne nag moo di Sélia bi nga xam ne moo nekk foofee ba suba